kon tey jii suñ demee maanaam ba mën koo am 100 pour cent nañ sant yàlla dëkk bi nag day dëkk boo xam ne nii dëkkum ndigal la ba tax na mbir mi toll woon na foo xam ne nii nii mu doxe waru ni woon a doxe waaye nag ginnaaw ci ndigal la ñuy sukkandiku bu déggee ndigal rek duut nu am baat duut nu am lenn lu def lu dut sukkandiku ci ndigal li waaye kenn ku nekk na nga xam ne nii mbir mii am ñaaw na ba fu ñaaw mën a yem ndax dugg nañ ci dëkk bi topp ko ba rey ko ay nit jël ko di ko toppatoo ci li ñu wax mais toppatoo bi nga xam ne nii moom lañ ñu tegal nun ñi di ay bokkam sës ci ñoom toppatoo bi des na ci suñu xel waaye nag ñi nga xam ne nii ñoo fi ay kilifa wax nañ ne bàyyeeguñ ko te danañ ko topp teg ko ci aw yoon te nuy danañ ko jaral te ko yaakaar ne bàyyi nañ ko ndax nga sa bopp bàyyeeguñ ko di soobee yàlla. mu mel ni amoon na ay coow ko. ci ci ndigal ngeen ko eh, waa hôpital ci seen loxo ñoom. waa hôpital teguñu dara ci suñu loxo. suñ mag bi nga xam ne nii mooy suñu mag ñoo toog fii démb ba 11h ci guddi mu woo ma ñu ànd dem mu ne Diagne Sarr Modou Diop Diawbe woo nañ ko nekkoon nañ ñëw jël si néew bi ñu dem 11 ci guddi bañ fay jógee parce que minuit jot na ci lañ ñu jox néew bi. guddi lañ ci guddi lañ leen ko jox samedi ci ñu néew bi yóbbu ko ca margu ba samedi ci guddi. gis ngeen gis nañ ci ay gaañu gaañu. gis nañ ko ci am na ci vidéo boo xaye ni danañ la ko jox di soobee yàlla. man sama xarit dippi xale ba ci mag daawuñu tàggoo guddi daawuñu tàggoo bëccëg liggéey bi naka nu sara waaye xol yi musta réeroo aw demiinam tiis nanu metti na ci nun torop ndax dara leeru ci. boo ko seetloo comme ni ngeen ko waxee léegi nii boo gisee yaramam bari na ay gaañu gaañu yu ca am bari na ay gaañu gaañu te oto bi bi mu defee soog noo dem ba fa mu ko defee poto yim njëkk a daane ak eh, itam pied bu pied bi nga xam ne moom cala la dal taxaw fa ñaar ñi wàcc di daw moom dafa wàcce comme ñoom dégg naa bi mu wàccee ba jóg taxaw daal ak biñ ko diree tëral ko benn la loolu nag nun munta leerut ci nun ndax gisuñu ku ko leeral te dara leeru ci duwaañ yi loolu su am na soxna soo xaye si nun bi fa njëkkee dem ndax dañ doon dégg ay rumeur yoo xaye si amuñu luñ ci teewe kuñ laaj nga ne demuma fa maag rakkam bii fi taxaw léegi muy ki doon wax nu ànd dem ba yegg fa ak suñ benn baay bu ñuy wax Mali euh, Maguette yaasin bi demee soxna si génn nee na lépp ci sama kanam la teewe buñ ma dee yóbbu nañ ma yóbbu waaye danaa wax dëgg gi te yàlla tax ma ne ko kenn du la yóbbu mu ne ci sama kanam la duwaañ yi ñoom ñoo ñëw génne Cheikh Ndiaye ci biir te Cheikh Ndiaye jóg na taxaw ba bëgg génn diggante boobu ku jóg taxaw ba bëgg a génn nan lañ koy génnee di ko tëral affaire boobu dara léeru fa soxna si nee na gis naa duwaan bi yor pistolet yor paak ñaari sëfoor yi newoon ci kanam nee na biñ jaaree ci kanam ci ginnaawam di daw ba niñ sotee miiru jàkka ji nekk foofu maire bi nee na lépp ci sama kanam la ne lu ciy am buñ ma wooyee fuñ ma woo ma wuy ji ma ne ko kenn du la woo waaye lii noo ko teewee Cheikh Ndiaye daal dem na dem na waaye demin wi moom dara leeru ci. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuy di leen siyaare di nuyu sëñ Mountakha Bassir di ko ñaanal fan gu gudd gu wér di sant bu baax nag ci taxawaay bu mu ci taxawe ndax yàlla bi mu dogalee seex deset yi ñuy dox di dox di dox ba sëñ bi jot ci dafa wax na nan ci dox lépp luñ ci war a dox. boobaat ban ca danoo daal di wéyee ñun di wéyee ndigal ndigal loolu nag ci lan di dox ñun ba léegi. li ci xam ne moom moo ci am daal moom li wér te wóor mooy seex moom yàlla dogal na wàcc na metti na lool ci ñun mbooleem ñun ñi nga xam ne famille bi la metti na ci ñun lool. li nga xam ne moo ci am importance wax ji li muy gudd li muy gàtt seex moom duwaañee ko rey duwaañee ko mbëkk mu dal ci gar ci ci poto bi ñu mbëkk wata bi tasanteeg seex di génn ñu mbëkk bi tas ko ci miir bi seex Cheikh Douanier ko rey lu wér la moom mënuñoo wax wax a wax ñoom ba reyuñu ko parce que ñoom bi ñoo ko wàccee ci wata bi wàññeer bi ko lonk wata bi wàcc ko fa jooju jëf rek a njëkk a ñaaw dara rafetu ci waaw diggante li nga xamante si ne yàlla doo dogal nañu booba ak tey démb ba léegi ñu di ko toppi ba tey jii nag ba yàlla dogal ñu jotoon digalul denc ko maanaam digal lépp it benn la ban demee ca barab yaa wuute gaag yëpp it nit ñee téeyul rek mais ndigal dong lañ fa doon diglu ndax joxe woon ndigal la démb moo ko joxewaat tey ka joxe woon ndigal li démb pour ñu denc ko tey ci onze heures ji moo joxewaat tey ndigal li ñu continué ko denc mooy sëñ Kara Sylla ndax ki nga moy ne mooy sëriñam rakk la ci sëñ Kara ñoom ñëpp ak taalibe yi moo leen jiite kàddoom kenn du ko toxal te moom ci ginnaaw sëñ Muntaxa ndax bi ko bi ko sëñ Fallou Galass Sylla waxee da ko wax ne ko waxuma la seex moo mu faatu waaye man Muudu Kara mii sax su fekkoon te yàlla daa dogal sëñ bi dana sëñ xaa daa waxoon nan ma denc fii ma ne ñu denc ma fi loolu la wax mais bari nañu ci doon wax fee ca barab yo te démb ba léegi teguñu fa tànk gisuñu leen tay laa leen fa gis ñuy wax te kenn lam cey wax amut ndax ñun ci ndigal leen wéyoon te ndigal li sëñ Kara ko joxe démb ne bu fekkee yoon def na li ñu ci war a def ba pare nan jël denc ko sëñ mënta xaat ndigal li mooy wax am na ko wax ne ma sama mag wax na ma seex góor mi sun ma ne jot na ndigalu ñu ne sëñ mënta xaat dafa xam ne nit ku ne ay bokkam koy mën a taxaw denc ko moom dafa bëggoon ñu toppatoo ginnaawam rek loola lu wér la kon lii nii la mbir mi demee ñu ñëw ca barab yi di wax di jaxase ñooñu dañ ñuy jaxase rek mais kaddu gi ko gi jàllale woon démb ñor koo denc koo ko ca leen continuer moo ko denc sëñ Kara ko jàllale woon ñun taalibe yi ñun ñëpp ñu dox ci ginnaawam ak ay rakam te kaddu googu leen continuer ba denc ko waaw Diagne Sarr mais temps ñu wax it gone yi dinaa ko leeral gone yi di ci wax Diagne moo taxawu seex Diagne moo taxawu seex ban denc ko démb ba léegi ba mu faatoo ba léegi jotee ay information ne douane moo dàq ba mujj ñàkk ba kanam mu mel ni xibaar la boo xam ne bu doy waar la ci dëkk bu sell bi di Touba ndax ginnaaw bi mbir mi xewee ma mi ngi xew ci ay 11 ci bëccëg ginnaaw bi mu xewee ci 11 ci bëccëg ba sappo jël ko yóbbu kenn xamu ci woon dara nii ay mbokkam nii ci waa Touba dara information bi génnul fenn bi mu demee ba ay boori 19 man mii di wax ak yéen ci lañ ma envoyé benn vocal WhatsApp keneen nit kooku na ma envoyé woon boobu ndax Cheikh Ndiaye kat dañu dégg ne dafa accidenté ba faatu na te ki ma koy wax xàmmewul Cheikh Ndiaye pour ma envoyé ko vidéo boobu pour mu gis kanam Cheikh Ndiaye ba xam moom la am déet ci laa jël vidéo boo nga ne man maa ko àndoon ak Cheikh ak keneen envoyé ko bi mu bi effectivement woo ma na ma kii mooy Cheikh Ndiaye dafa accidenté ndax tuwaañ ñoo ko doon dàq ci laa taal sama oto dem fi nga ki nga xam ne moom ma doon wax loolu bi ma demee pour jël foofu information am kooku it daan na ma kii nga xam ne moom moo àndoon ak Cheikh Ndiaye yoroon benn oto yi di Modou Amar il faut nga woo diw mu jox la numéro Modou Amar pour nga jot ko pour am ci moom ay information jamono boobu mën naa ne la ay mbokkam ñi ko jot a yëg akus néew ñoom ñi nga wutale hôpital ngir nuñ def ba jot seenub koor waaye xamaguñ naka la constat bi demee léegi ci laa woo Modou Amar Modou Amar expliqué ma cas bi ni mu demee man ne ko bala maa def den danaa dem ci bërëb ba nga xam ne fa la accident amee bi ma demee ba agsi agsi ci bërëb bi it ci laa gis fee nga xam ne gis fi mu dal waaye gis ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kër gi ma laaj leen ñu wax ma histoire bi naka la demee ak naka la ko duwaañ génne ci oto bi ak sapeur pompier bi mu ñëwee ñoom waa koñ ba ñoom ñoo jël seen téléphone woo sapeur sapeur bi mu ñëwee daf leen laaj na leen naka nan la ñu leen waa koñ bi leen duwaañu ko rey sapeur jël ko noonu yóbbu bi mu faatoo ci oto sapeur sapeur bi mu ko yóbbu hôpital woowut police woowut gendarmerie ci guddi gi ma fi demee ay ci boori 22h ci la police doog a ñëw man mii maa jox police woo audio yi ma fa jot a ci waa koñ bi maa ko jox police ak vidéo yañ fa jot a filmé pour police mën a def ay constat kuñ koo xam ne nag dafa am problème neuf euh, onze heures ci suba ba ay vingt deux heures sapeur jël ko yóbbu te police yi yëgu ko gendarmerie yëgu ko autorité dëkk bi kenn yëgu ko nga xam ne ci la laat ka doog faa yebale ci lañ doo ko téléphoné ma téléphoné Baye Fallou Galassi la fekk bi ma koy téléphoné mi ngi ci Cheikh Bass ci la ko doog a wax Cheikh Bass Cheikh Bass it na dina ko wax si Mountakha bu biñ ci guddi gi ñu wax ne woo nañ leen kilifa yi dëkk ci kër gi wax ne woo nañ leen yéen ko dégg seen i kàddu pour ñu ñëw jël si néew bi pour denc ko. min xëy suba ci yoor yor gi ba ñu war koo denc jotoon na am ay coow ay jotuñu jot waruñu koo denc ak buñ ko denc bañ jotee sëñ Modou Kara Sylla nag mu wax ne comme hôpital def na li mu war a def jox naa ndigal Baye Fall Gala Sylla ngeen wax ñu denc ko. buñ paree leneen li ñuy lijjanti doo ko lijjanti ci lañ ko denc nag di ñaan suñu borom xare ko àjjana ca almeer yi coow lu bëri amoon na fa ci nañ ko denc ak buñ ko denc waaye ginnaaw bi ñu jotee ndigalul ki nga xam ne moom mooy magu sëriñam ci la joxe ndigal ne nañ ko denc ci lañ ko door a denc waaye biñ ko dencee nag teewut naqaru metti lañ amee ndax denc nañ ko waaye xamaguñ ba fii ñu taxaw lan moo rey Cheikh Ndiaye ndax duwaa ñi am na ñu ne duwaa ñi nee nañ oto bi fekkuñ ci woon kenn am ñu ne duwaa ñi nee nañ reyuñu ko am ñu ne duwaa ñi gisuñu ko te ñoom li ñu wax ak ña ko fekkee ñëpp dañoo wax ne duwaa ñi ñoo génne Cheikh ci biir oto bi tëral ko ba pare niñ ko tëralee dafa ñaaw ndax dañ ko tëral làq ko ci wetu miir bi këpp ko ci miir bi lonk oto bi dem seen yoon loolu ña ko fekkee ñëpp loolu loolu lañu wax mu nekk nag procédure boo xam ne daañu leen ko toppal ba xam fan la wan ne di mujj ak i gëtam ngeen doon ànd ak mboolem site internet di nekk ci Touba ak télé yeeg rajo yi ñuy topp information bi ndax nekk na loo xam ne c'est la première fois mu mën a am ci dëkk bi ab duwaañ bu tàq nit ba biir Touba kooka mujj ñàkk ba kanam mi ngi doog am ci biir dëkk bi loolu dafa bëri li muy dugg ci biir dëkk bi dafay jàpp ay oto ak dafi nangu oto bëri na loolu it Cheikh Bass na ko kilifa yi yëg nañ ko matuwaay yu ñu ci war a jël dinañ ko jël ba loolu dakk ci Touba waaye ki nga ne ñàkk na ba kanam ñu topp ko ba xam